sëriñ bi daal sëkk tey ëllëg kon nag ko fas yéenee nañ ko fas yéenee liggéey liggéey. di ñëpp di gën a siyaare ñëpp nag sunu mbokk mu baax ma te féete woon na ci liggéey bu rëy rëy muy alxuraan ñoo ngi koy siyaare ñëpp di ko saa julli yëpp bett nañu. waaye suñu borom moom kenn wër sa mbett ndax suñu borom moom moo xam li muy def moo xam na tax mu def moo tax moo xam na mu koy defee kon dana war a diglu rek di diglu ndigal bu mu toll ak nu rek nu toll nu toll ko kon man na ne am man na ne lu nu waroon a am mbett lañu ci eh, ñàkk gi ñàkk suñu wettal bu baax ba Euh, man noo féete ci suñ fépp euh, toll fañ ko gënoon a soxlaa waaye nag yàlla moo xam ne muy def ginnaaw nag dafa noppalu ji moom ndax fi moom liggéey rek a fi nekk liggéey rek moom mënut a noppale mënut a mënut a neex waaye am liggéey dong nga fi nekk lay nekkul kon nag. Euh, alhamdulilah bu demee ñu dénkoon ko li ci liggéey bi muy liggéey bu rëy eh, suñu ci coobareem eh, loolu dañu daal daal delluwaat lépp ci suñu borom ndax moo moo xam moo sañ moo xam li muy def waaye nag alhamdulilah rabbil alamin eh, taxul woon nag te nu ñàkk yaakaar ndax xam na ne moom suñu borom jeexlewul dara sëriñ bi mi boole mooy borom liggéey bi itam lu mat a fàggu fàggu na ko lu mat a fàggu fàggu ko kon ci rek la nekk kon jaare mënu fi am loolu nag moo waral eh, liggéey bi nga xam ne moom lañ dénkoon sëñ Maam Mor moom yor ko yore wu rafet na mu ko noo ko yore noppal na ci wettul na ci lépp nag ci ci lépp ci wàllu liggéey bi Talla jëme si coobareem loolu ba mu amee itam dama jàpp ne dama dama daal di dama daal am yaqin ne eh, foofee mu féete woon ci foofee mu nu féete woon ci wàllu taxawaay bi eh, moo tax ma daal di yónni ca kër yi bëgg muy muy si àbbo eh, xamal ko ne ko liggéey baa ngoog te itam soxla nañ ko. ku taxaw fa suñu maam moo taxawoon loolu it ban koy wax it eh, amul ci benn jaaxle xamoon na ne daan ko am na na koo bëggee loolu nag moo waral boo eh, defe ko nii mu ko defe eh, liggéey ba mu yebal ko mu des si fi noonu dañu joxe woon ndigal sëñ Mamour ñu ko ndigal sëñ xabar mii loolu nag eh, sunu xel dal na ci bu baax a baax a baax yaakaar naa ne boobu cër boobu moom eh, eh, yeyoon na ko ci wàll yëpp kon alhamdulilah rabbil alamin yàlla mooy def kenn deful nag yàlla mooy def coobaram xëy na bi mu fi jëlee sëñ Maamoor itam xanaa moom booba rafetoon nañ jot bu baax ne dana am ku ko wutu loolu nag moo moo ci moo ci agsi kon ginnaaw sëñ Abo xalaatal na boppam ba sëñ sëñ xabaan loolu kon dañ daal daal doy sëkk ci daal di koy jox joxaat jox ndigal ca lëggéey boobee suñ ma féete woon nu ca yoroon na ko yoroon rafet loolu dañu daal di am xel mu daal mu sëkk yaakaar ju sëkk euh, ci ñu dénkaat ko suñ xabaan féete fan suñ ci wàll yëpp nag ci ci wàll yëpp ci wàll yoon wi xanaa boobu da cee gën a diis waaye doy nu ci wàll ci wàll wàllu yoon mi yëpp kon nag moom sañ xabaan kon nag mu ngoog eh, digal laa ngoog eh, ñun ñëpp itam dañuy eh, sañ suñu warte mooy ah, ànd ànd koog yow kon na nga xam ne naka daal sañ aboo ñëpp dañu ko ànd ak yow waaw ci biir activité incha allah te am ci xel mu daal nag a baax a baax a baax am ci xel eh, am nañ ci xel daal boo xam ne sax xawul la jar ñaan waaye teewul nag daan ñaan daan teewul daan ñaan naan ci mbaxu sëriñ bi boo miy dafa gis ne gàttu na ak tawfeex sëriñ Tuubaa ci sa ci sa lépp nag biir biti loolu nag ci biir loolu wér ak fan gudd ak waan ak na jiitu ci tawfeex jooju ba nga mën a nekk ci liggéey boobu te yàgg ci lool borom liggéey bi gàttu na la ak loolu rek mooy loolu yi. sëriñ sëkk tey ëllëg kon nag nañ ko fas yéenee nañ ko fas yéenee liggéey